asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 23 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb leen ay xëy door ak mu mel ne ki nag yëglikaay ba moom la mu xëy def ca la mu nekkoon di ko joxe muy torofewu sunu làmb door ba ci at mi nu génne ci wàllum làmb ci riba raw yëglikaay bi nag bi mu xëyee tey ca la ñëw wan ñu ki nga xam ne mooy Omar Kane Reug ak ki nga xam ne mooy tafaatin boroom takk ci rib ñoom ñaar nag ñu nga ànd wàcc di njuug maanaam di fecc fa nga xam ne ni fa la mbiree doon amee mel ni ki nag kon sunu làmb door ba moom joxe nañ ko Reug Reug nag la mu xam le daal nee na li leer ba leer moom dana tax écrit yi gën a liggéey maanaam dina leen pousse si ñu gën a nekk ci daal di liggéey ngir que résultat yi gën a baax mu mel ni ki nag foofa moom yëngu na ba yegg ca lool lool li nga xam ne nii moom moo di sunu làmb door ba ndax ka nga xam ne moo di Oumou Sow abu cubal ñoom itam ñëw nañ fa wane fa seen bopp yëngal ko ba mu yëngatu Malick ñi ngi président ba nga xam ne tamit moo jiite écrit ak école de imam tamit mu nga foon moom it daal wax na ci jàpp na ne daal lii moom moom manqué woon yi nga xam ne nii moo di écrit yaawu jaal tamit wane na fa boppam rafetlu la nga xam ne nii moo di la gaañ def wala la waa sunu làmb def waaye ay foto itam ñàkku ci ndax nag yëglikaay bi ñëw ñu wan ñu ñoom baabooy ak Amadou Mbaye ak ka nga xam ne nii mooy maam jaara bi tey ka xam ne ni maam jaara béy nga xam ne moo rek commerce ba Iba Kane ñoom ñëpp daal waa Yoof Bekaay Mbaye ak Malick Niang Balla Dioufoo ku ci ne yaa nga woon ca mbir ma mu mel ni kii daal mbir ma neexoon na lool wala boog meloon na ni tukk sa bën saañ ba réer sunu làmb door ba yoof gàddu ko dal di ko yóbbu te nag la ñu nar ñoom waa yoof daal nañ dañoo fas yéene nag loola ñu nekke ñu continuer ko maanaam daal saison bii nu jëmbat wala bii nu ne moom la cay nekk maanaam ci wàllum làmb ñu nekkaat numéro ba loolu mooy seen yëg-yëg wala moom la ñu bëgg ñoom waa Yoff waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay dem ba tey fa nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay bi nga xam ne mooy sunu làmb wala boog fa nga xam ne moo di observateur mu mel ni kii nag ka nga xam ne nii mooy doomi Luc Nicolaï génn na nag wax muy Wili Wili Luc Nicolaï daal la mu xam le day wax na ay dëggam jàppale ne xam na ne tamit daal weddi ne ña ngay ña doon wax ne daal papaam dafa dugg ci wàllum grève de faim ndax nañ ko fas yéene yóbbu fa nga xam moo di ca kaso ba nekk ca Ndar moom Wili wax na lool ba tey gis nañ ko ca Lutte TV mu nga fay wax ca vidéo moom Willy Luc Nicolaï di doomu ka nga xam ne moo di Luc combat booba nag mu mel ni ki fi mu nekk nii daal yëglikaay bii di record ñëw na ci ka ay wax nag ca record moo di Double moom la mu xam ne daal nee na kii di Ama Baldé moom daan mu loo lay def loolu mooy wax ka nga xam ne nii moom moo di record wala boog waxi Double Less ci yëglikaay bii nga xam ne nii moo di record waaye ba tey bu nu continuer mu mel ni ki nag dañ fay ñëwaat ci combat boobu sunu làmb moom lam ñuy xamal day nee na pour sauver combat bi nag ngir fexe mu am am réunion boo xam ne ni daal fas nañ koo def ci mois de janvier lañ ca jublu nag mooy fexe daal ba combat bi nga xam ne nii moo diggante Ama ak Modou dal di am donte Luc Nicolaï mu nga sa kaso ba waaye ba tey bu nu continuer dem fa nga xam ne nii moo di ca Leewtoo TV lañ fay fekk nag moo di Serigne Ndiaye numéro 2 ba nga xam ne daal moo doon bëree demb ak ka nga xam ne moo di Libidor record ñëw na ci sunu làmb ñëw na ci la tribune tamit ñëw na ci Serigne Ndiaye nag moom boo xoolee attaque daal la def sa waay dugal ko benn droite ki nga xam ne moo di Libidor wàcc maanaam da ko kawote noonu la ñu ko yëglikaay yépp xëy tey waxee mu mel ni ki tamit gis nañ leen ñoom ñaar ci record na ko sëriñ doore ak na nga xam ne nii noonu la Libidor wàcce sunu làmb moom daal ñu xamal ne day ki nga xam ne nii mu di sëriñ Njaay numéro 2 moom mu ngay waat boppam wala wane na boppam ci beneen façon boo xam ne nii daal xamee wuñ ko ko wan muy mbirum xeex loolu la ñu yëglikaay bi dal di wax l'observateur moom nañu kii sëriñ Njaay moom kawote na ki nga xam ne nii bi moom moo di libidoor bu kayaar yëglikaay yépp tey ñëw ci lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag leneen loo xam ne tamit yëglikaay yi ñëw nañ ci mooy ki nga xam ne nii moo di diggante Papa Sow ak waa Fass sunu làmb moo ci ñëw di ci waxaat ne na ka cay wax nag mu dalal ko mooy Thierno Dramé Thierno nag moom mooy secrétaire général lu écrit ba bokk wala seenu trésorier Thierno daal la muy xam ne daal ne kii di Abbas Ndoye moom lu nekk def na ko ngir ki nga xam ne nii moom moo di écurie Fass wala boog ki nga xam ne moo di Papa Sow mu mel ni ki daal kon boo bëggee dégg dëgg moom foofa itam daal coow mu nga fa ba tey waaye feneen foo xam ne coow dafa amoon te coow la di continuer muy diggante bàyyi mu joon ak xoyantaan yëglikaay bi ni sunu làmb nag moo nooy xamal ne daal am nay promoteur yoo xam ne ñu ngi démarrer combat bi ngir tëgg ko fii nga xam ne moo di Sénégal ngir seeni mbir mën a leer yëglikaay bi moo xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye li leer ba leer moom weekend bi itam lambi simple ji jaxoon na trop trop ndax ki nga xam ne moo di óbbali Adrien Senghor moo fa gagné fa xam ne mooy ca ñaaxar ki nga xam ne mooy assurance moo fa daan ki nga xam ne nii moom moo di ordinateur waaye général Malika tamit fa nga xam ne mooy ca gay njaay ka ko fa daan moom moo di ki nga xam ne moo di caaka fay mel ni kii daal kon boo bëggee dégg-dégg moom weekend bi safoon na sap ci wàllum lambi simple waaye li leer ba leer daal ñun moom du ñu tàyyi di ko wax lig ni ko laay daal ñu ngi koy ñaanal yàlla lii mu dugg wala lii ñu ko dugal yàlla na ci génne jàmm te mu bañ yàgg ndax nag soxla nañ ko ci réew mi waaye soxla nañ ko ci làmb ji nga xam ne mooy sunu cosaan ndax lig nag nit la ku baax a baax a baax. ma ko waa Leewtoo TV leen di leen gërëm leen sant ba waxee ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd yéen si jàngatu arène Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar la wax tamit sa footballeur Sadio Mané dafa dina mën a barki dem. waaw kooku footballeur réew mi yëpp ah waaw waaye nag ku ma ko féetal la may jël waa di ko wax ne ko moom la ma ko waxoon rek da Bambali a Génération Foot Metz Salzbourg ba Southampton ba Liverpool. c'est le meilleur parmi les meilleurs ci 2019 jàpp 2020 bi ñu jëm parce que da koo wane coupe du monde des clubs ligue des champions ak yeneen trophée du fa kon Sadio félicitation yaa ngi dégg di nuyu internautes yëpp di leen ñaanal jàmm te di saaku ci ñoom man wax dëgg yàlla moom fierté la ci man man Babacar man mii di wax ak yéen. ah. pour pour ballon d'or non loolu mooy géej gi am na ndox ballon d'or yi am ci àddina bi Sadio Mané ko moom buñ ko ci joxul dañoo def la leen neex. Égypte lañ ko joxe ah, xaw ma Égypte xaw ma Maroc de waaye loo ci mën a dégg bi moom dina ñëw ci réew mi moom bu neexee suñu borom comme El Hadj Diouf rek la ko yàlla mayoon mu ñaar bi yoon dina ñett ak Sadio moom. Amin Babacar ñëw li nga xam ne noo ko moom ñëw si suñu lamb suñu lamb ñëw nag li nga xam ne mooy suñu lamb door bu amoon samedi bi passé écurie Yoff foofu daal ndaw rabbin way ak bàkk lépp mi ngi fa woon waa ndaw rabbin bi saay doom du man a ñàkk dëkku lébu faw ndaw rabbin am fa waaw parce que tamit euh, loolu am na solo mais man ñu may félicité ginnaaw bu mu félicité écrit bi di yoof bi ko gagné mais waa sunu lam bi am initiative bi rawatina seen kilifa di monsieur Mamadou Ibra Kane du noonu tudd ak madame Kane ak ña fay liggéey ñëpp ñoom Ibra Kane ak Dembélé Boubacar Niak Mbuub ak Waalo Gaye ñoom la ñuy féliciter quoi waa Africom yëpp parce que initiative bi tamit am na solo lii ñu def ni dana gën a motiver yi ñu gën di liggéey parce que ku si nekk tey di bàyyi xel ka ni kat déwén joxe sunu làmb doote dama koy bëgg a gagné kon vraiment initiative bi am na solo di leen ñaanal yàlla rek at bu jot yàlla na ëpp doole at bi passé woon barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax liggéey bu rafet loolu moo tax sa ñoom Iba Mar Diop waaw te mbaa xëy na Babacar sax laay wax mais Leewtoo moom mu nga foon ndax du mën a ñàkk waaw ndax vidéo yaa ngi ñaa ngi koy seetaan ci biir Leewtoo mais xëy na ñun man su ma sañun sama jëmm dafay bokk waaye nag comme olof yi koy wax rek waaw am na loo xam ne nii nit moom kenn nit nga mën a doon mais filistation daal waa yoof itam écrit bu yàggul a juddu mais itam félicitation rawatina tëdd fil baak Malick Niang ñoom gin bu Yoff ak Mour Dia fa nekk yëpp ay caatu Yoff dina wax ne tamit ah lii ñu leen defal nii nañu xam ne déwén wala saison bi moom day gën a métti ndax seeni morom dañ koy bëgg a jël waaw Babacar suñu jógee nag si euh, sunu lamb doo boobu la ñuy dalal si journal bi dalal na ki nga xam ne mooy Thierno Dramé Thierno Dramé moom wax na si dàq bi nga xam ni waa écurie Fass dàq na ki nga xam ne mooy Papa Sow moom daal lu ma gis mooy nee na président Abass Ndoye ak écurie bi yëpp daal def nañu lépp pour Papa Sow waaw maanaam boo ko déggee mooy defal nañ ko lépp lu ñu mën luñ man ci ci carrière am yu mel noonu waaw loolu moom la ñuy xaar si dirigeant moom la ñuy xaar si ci si kilifa parce que tamit comme li may wax rek écurie Fass nekk ay responsable lañu ay kilifa lañu écurie la bu yàgg écurie boo xam ne tey mën nañ ne ci histoire boo ko toppoon ci wàllu administration est ce que magul écurie yi fi ne boobu ba tey mu boo ko si làmb kon ñi ko téye tamit ay nit ñu am responsabilité lañu Papa Sow tamit ci ñoom la bokk parce que lu may wax rek même bu nekkatul ci bi ci ñoom la bokk parce que xam lu tax la leen boole pour man moo ëpp li leen tàqale man nag la may wax mooy rek nañu waxtaan jéem a trouver terrain d'entente ànd liggéey moo gën parce que tamit xam nga loolu moo fi moo fi nekk quoi nit nag dana juum nit da ngay juum yaa ngi dégg ci sa biir njaboot gi nga njaboote nag des fois ci la la kenn di tooñ def la lu la naqari waaye te du tere tamit des fois nga jéggale jëllale waaw bu gënee daal nañu toog waxtaan buñ xoolee ba xam ne tamit mbir ma mënatul la ne ba xam ne mënatul la ne itam ah su keroogee nag ku ne jàpp ci suñu borom rek xam ne yàlla ñëpp la fi nekkal ku nekk dem liggéey def la la doy ndax mag itam la dalam xelam mooy taxu yaramam di màgg. jeune aussi mi ngi xalaat nga euh, ginnaaw bu nu jàppee ki nga xam ne mooy Luc Nicolas euh, staff bi daal dinañ def réunion bu mag pour xool mois de janvier naka la ñuy def pour sauver combat royal boobu diggante Modou Lo ak Ama waaw ñun day sauvé bi réunion ba euh, dina am comme nañu ko wax ci mois de janvier waaye man Babacar moom sama ñaan mooy moo combat boobu am yàlla na ko lig taxaw ne ca biir moom loolu laay ñaan ci kàttanu suñu borom te yaakaar naa ñëpp it moom la ñuy ñaan muy profité tamit du nuyu doomam wili ndax démb déggante nañ waxtaan nañ lu yàgg ci téléphone wax na ma lu waxtaan nañ ci lu bare bari mu nekk xale boo xam ne tamit yaakaar naa ne euh, xale la waaye macha allah daal yàlla na ko yàlla sàmm parce que tamit euh, am nañ ci moom yaakaar waaw Wili ma koy nuyuwaat bu baax a baax di bokk ak moom mettit bi di ko xamal ne daal papam li olof Njaay ne li ñëpp wax ay dëgg rek mbaaxam yéwénam ak dimbaleem ñu bari constaté nañ ko te ñu bëri dund nañ ko kon ku mel noonu nag nu wax lu dul nekk nit bu baax la yàlla nag mooy dogal ay ndogalam si doomu adama su dogalee nag li lay noppal mooy nga nangu ko rek te yàlla tax def ca la nga war a def la ca des nag ñu bàyyi ko suñu borom ak autorités yi tamit ñu di leen ñaanal rek parce que ligue moom ligue internationale la jógee dem si record record nag dañoo jox euh, kàddu ki nga xam ne mooy le premier tigre de Fass Mbaye moom daal lu mu gis nee na daal moom il est formé Ama Baldé dina daan ki nga xam ne mooy Modou Lo Mbaye Guèye wax loolu wala duubalees duubalees waa kon duubalees moo wax loolu nee na moom daal i leer ba leer lees moom gàpp na ne Ama day daan Modou ah waaw loolu day comme li ma lay wax ne xam nga lamb jooju comme taxaw na actuellement wax ji dina ku ne di nga wax sa xelaat wax li nga foog ak li nga bëgg waaye li ca des nag ca géew ba lay leere tey li tax mu jël Modou Lo mooy daan ko dafa jàpp ne mën na koo daan dafa jàpp ne da koy daan moom loolu la gëm ka nga xam ne mooy waajuram tamit di lees loolu ama doom jooju gëm ba jël bi moom it loolu la ci loolu la koy jàppale ànd ceeg moom waaye Modou Lo tamit loolu ñooñ di wax moom it gëm ne moom it day daan kon nag xam nga nu ñuy def dañuy ñaan borom bi nga xam ne dara tëwu ko te lépp fekkee na ko yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba mois de juillet arbitre génn seen diggante ñu tëj barrière bi ñu xool fa ndam li di mujjee suñ jógee nag euh, si record nañuy dem fi nga xam ni mooy Leewtoo point net Leewtoo point net ñi nga xamal ne ki nga xam ne euh, grand lutte bu Yékini euh, doon organisé fee si Diofior ki nga xam ni mooy assurance moom moo daan ki nga xam ordinateur moom moo daan ki nga xam ni assurance mooy assurance su ñëwee nag si Adrien Senghor ki nga xam ni moom mooy Ibou Ndiaye Obouli moo daan ki nga xam ni mooy Gaskel day kuma noonu lay deme ah, ah, xam naa da ngaa ndékkeegul waaye li leer ba leer daal weekend bi moom jaxoon na ak lambi simple parce que buñ ko demee fu mel ni ñaaxar ordinateur dañ ko faa gagné assurance fa def loolu fii ci moo fi gagné Gaye Ndiaye tamit yaakaar naa ne Thiaka Faye moo fa gagné fa nga xam ne mooy ca jof yor tamit euh, ki nga xam ne mooy ordinateur moo fa gañoon assurance mu mel ni kon lambi simple ji moom moom itam rek jeex na li ma sama grand ci wax rek nee na lamb ji au some xëy na moom problème waaye à la base moom mu ngi dox te macha allah mu ngi dox ndax démb bu ñëw Iba Mar Diop dem ci àll bi ñëw Grand Yoff fépp a ngi dox macha allah. Babacar suñu jógee nag si Leewtoo point nag dañu dem fi nga xam ne mooy Leewtoo TV dem face daal mi bu ñu jógee seen ñaar defet ki nga xam ne mooy Serigne Ndiaye de si kaw euh, Libido. waaw loolu moom daa mel ni démb noyuwaat nañ parce que tamit comme li ma la wax rek écrit bu mag la ah, Euh, ubbi nañ seen saison euh, xëy na sax du kooku moo njëkk muy Pape Ndoye mais ci làmb ju mag Pape Ndoye moo fa njëkk def ñu daan ko ak manière bañ ko daan mu metti woon trop kere ci ñoom parce que dañ ko ëmboon a ko waaw tey nag dafa gii tamit ñu ëmb ko ko moom itam combat am gis nga lam def waaw ba ba ba génn ca waaye loo mën a xew daa ñàkk combat ba waaw Abou Niasse moom moo yóbbu ndam lu yóbbu drapeau ba waaw démb ñu ëmbat Serigne Ndiaye andi ko tam gis nga dafa mu mujj ak Libidor yàlla may leen ci ndam lu rëy muy loo xam ne tamit ñu ngi leen di féliciter di encourager Libidor parce que tamit lamb ji démb mais promoteur bi tamit ñu koy ah, allah taaru na rafet na par rapport ak public bi ak ñoo gëj a gis si lamb démb ñëpp ñëw nañ mu mën ne ko kon démb lamb ju mag la tëggoon Serigne Ndiaye ak Libidor nag comme li ñuy wax rek ah jotu ñoo bëre bi ni ñu doon xaar ci ñoom xeexa fa jota am Serigne Ndiaye dugal ko benn droite waa ji wàcc fekk ko fa eggale lamb ja jeex ñu koy félicité moom tamit yaakaar na xale la boo xam ne nii bu déggee ndigal tegu ci fi mu war a tegu war na mën a bokk si làmb yaa ngi dégg mais làmb nag dafa am des fois xale yi dafa am lu ñuy teel a incarné des fois te loolu day freiner seen carrière mooy star gi mooy champion gi te yooyu pour man du ko jar affaire bi da ngay ne ci sa coin di liggéey rek topp ci ay ndigal nit kilifa yi waaw loolu daal di leen félicité démb bi tamit may ci seetlu benn seetlu boo xam ne maa gis depuis saison yëpp dañuy ñëw kenn du manqué te dafil baak président ak ñëpp ay ñëw mel ni kon daa mel ni ñoom dañoo bëgg a jóg beneen jógaat waa régal ah règlement intérieur bi daa mel ni daal fi mu ne ma nag niñ ko commencé dinañ ko ñu jeexaleem déet waaw waaye daal commencement bi ñu def nii tamit loolu lu baax la ndax day motiver mbër yi leen di motiver Babacar sa kàddu yu rafet yooyu la ñuy tàggoo sunu mbokk internautes yi dinañ jox di daje suba incha mais balaa boobu may nuyu sama yaay mais soo di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astan ni DG Brahma Chéri Khadija Diar di samay doom maam Diarra Penda Rokhaya Bébé Fall di nuyu ki nga xam ni mooy euh, Moussa di nuyu ki nga xam ni mooy euh, mbay Seye depuis depuis la France nuyu Abdou Gueye Pape Sita Baye Fallou jàmbagal depuis les États-Unis aussi maa ngi koy nuyu di ko ziar di waaw noonu la demee nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ah, di ko saaku ci ñëpp waaye di nuyu koo xam tamit moom sama waay la muy Aziz Ndiaye Abdou Aziz Ndiaye alamin maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak Ibulaay Ibulaay borom waaw borom euh, oto yi maa ngi koy bu baax a baax sama gayaan la moom tamit waaw Ibulaay maa ngi lay bëggee doomu ndeyu Modou Lo maa ngi koy bi nuy di nuyu képp ku nga xam ne daal yaa ngi suivre à travers le monde ñoom Abdoulaye Mbaye xam nga ñoom Madar Diouf Sal Diouf Saliou Baye saal parti réew mi ca Italie maa ngi koy nuyu moom tamit di mbokk sama doom ni jaay ma koy nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre di nuyu tamit sama mbokk bool bool yi mais di nuyu tamit Yàggamaar la caméraman ah ak Kempes doomu ndeyu Kempes ah borom France gis nañ daal yi ci Yàggamaar nice na yaa sama waaja Kempes mais nuyu nañ képp ku ñuy suivre dal à travers le monde ah di nuyu fans baba Babacar bi fans club Leewtoo du ma leen fàtte ah di nuyu As VIP Sob As lu mu fi revue de presse rek yaa moom borom Colobane kenn du waaye kenn waaye kenn du bàyyi saal ak kan ki nga xam ne nii waaye ñëpp ñuy solal Babacar waaye daal nag yére yeeg ñawkat yeeg nuyu naa ñëpp Sénégal ya borom cuuraay non borom cuuraay yi ñeen day ñoom ñooñu rek Badara cuuraay Xaadim cuuraay Marsa Salem ñooñu ñoo man ci réew mi ay non ay talu cuuraay mbokk waa Leewtoo yi ba suba incha allah <laughs>